liggéey nañ fi loo xam ne am na lu ñu teg ci développement Sénégal su ko defee ñi ñëw suñu ginnaaw mottali liggéey boobu ndax àdduna noonu rek la war a mën a demee te loolu yàgg nga dima ko wax ci biir wax nga ko sax si biti kon nag jërëjëf sëriñ bi si sa taxawaay jërëjëf si sa jàppale jërëjëf ci li nga xamante ni loolu nga wone te ñëpp xam ko ci réew mi dañ Babacar Sy ku ne xam na dëggoom ak li nga xam ne mooy li mu gëm rek lay wax te ku ku ku ku nekk ci siraatal mustaqima la loolu lu jiitu nga toog fi comme xalif général la moo tax ñuy am mbégte di rafetlu it liggéey bi nga liggéeyal diine ji liggéeyal ko tarixa bi mu yoonu Cheikh Ahmed Tijane Chérif radiyallahu taala anhu te jumaa ji rek nekk si preuve a jumaa ji yàgg na lool te chantier bu mag a mag la te yaa ko yëkkati te yàlla andi ko fi yan na ko yàlla mottali te daanaka jeex na kon loolu dama ci rafetlu sa liggéey kon mën nañu wax ne ndono bi de puso bi réeréwul fii ndax li nga waroon def yëpp def nga ko muy ci Tiwaawoon ci modernisation Tiwaawoon luñ si mënoon it jàppale nañ la si ndax Tiwaawoon dëkku diine la muy ci taliyi muy ci hôpital bi muy ci lëpp loo xam ne luy andi euh, taaru dëkk bi la ndax dëkku diine la li ci des nag mooy ci wàllu diine yi ba tey ñëwoon naa fi 2015 fekk fi suñu wayjur sëñ Abdoul Aziz Al Amin na yàlla yokk leeram moom it fa mu nekk ma ne ko woon réew mi mu ngi bëgg a dugg ci jafe-jafe ndax l'islam bi ñu koy mbuboowoo bëree nañu te li nga xam ne moo téye woon Sénégal dëgg-dëgg ci stabilité moo doon suñu islam bi ñu am su fiyanke yi téye ko keneen ku nekk it am nga nag sa yoon man duma dugg ci gàm boobu waaye li fi maam yi def mu ëpp junni at lislam lislaam duggee Sénégal rek ëpp na junni at kon loolu waruñ ko foye ba di ñu bëgg a jàngal yeneen pexe yu bees loolu nag pour mu mën a wéy foog këru diine yi ñu continuer di ci jàngale l'islam continuer mu nekk ay foyer ardent ni ko mag ñu baax ni daan defee loolu mooy tax ëllëg ñi ñëw bëgg a wëlbati xel yi danañ dajeeg ñu am xam-xam mën a armer taalibe yi armer population loolu dafa am solo état am na ci wàll mooy lutter contre forme extrémisme yi te mu ngi suñu frontière amana sax mu donc lolu moy recommandation bi may ñëk def te Sénégal ñu continuer diko sam ndax stabilité ci le lépp xej bu lolu weesoo it ñëw naa ak premier ministre and ak euh, ministre président du conseil économique and ak euh, ministre de l'intérieur ak délégation biñ fi lim léegi ministre Abdoulaye Diouf sar ak ñeneen ñi nekk ak ñi ànd ak man yëpp yàlla def na nag joxoñ naa ndax koo gis ku ne bu doon sa sago sa ginnaaw danga koy defar mu rafet ginnaaw bi nag mooy Sénégal stabilité d'abord jàmm ji ñu saxal ko liggéey bi ñu sumb tam ñu mottali ko te loolu ci équipe bi laa ci am yaakaar tama leen leen di dënk ngir ñu jàppale leen du jàppale leen ngir seen bopp waaye ngir Sénégal ndax bu réew mi wàccee yoon bi mu jël fa mu jëm baaxul te am na luñ ci jot a gis jamono yi ñu génn te loolu lancement la rek kon loolu nag jar na fànq danañu yàlla musal si luy indil jafe-jafe réew mi ñoom it ñu góorgóorlu jàppalante nekk benn ku ne fàtti sa bopp xool réew mi xool it exemple ci man mënoon naa ne kat nii la am naa si droit damay dem coow li ne kur xeex bi jóg waaye jaru ko jaraluma ko man bokk jaraluma ko kon kenn ku ne boo fàttee sa bopp xool réew mi rek ànd bi dana mën a rafet su ko defee ñëpp jàpp si Sénégal jëm kanam am nañ yaakaar si yow am nañ yaakaar si kilifa diine yi am na rôle bu ñu war a jouer sur la stabilité du Sénégal te rôle boobu ñu leen koy ñaan si mosu leen si jóg d'ailleurs kon sëñ bi man xam naa ne wax ji du bëri ndax euh, dañu ñëw ndokkal si si si gàmm gi euh, di la wax rek ni lépp lu ñu mënoon de wala lu ñu amoon yéene ci Tiwaawan def nañ ko ci fukki at ak ñaar yi lu ci amul it xëy na yàllaa ko tudduloon waaye suñ kem kàttan def nañ ko ngir jàppale Tiwaawan jàppale këru diine yëpp jàppale réew mi li ci des itam nag àdduna moom bés bu ne ak luñ ci luñ ci tabax bu bu fi ñiy ñëw bu ñu ñëwee dinañ continuer liggéey bi ndax dëkk yi àla kuliyaalin faaw ñu jàppale leen si si seen taxawaay ndax dëkk yu màgg la dëkk la yu am population yuy yuy màgg lool kon maa ngi lay santaat bu baax a baax te de gërëm di sant sëñ Maodo ak ay rakkam euh, ñoom ñëpp njaboot gi di sant euh, sëñ Mansour euh, ala bu sëñ Abdou Aziz

si say recommandation ci biir loo xam ne du ci biti lañ koy wax te lépp rek ngir ma mën a euh, liggéey ak jàmm jóge fi ak jàmm te loolu kon jar na sant yàlla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 ne góor ngóoraa tax